ñuy dalal tey lieutenant Aïssatou Keita di commandant unité 12 euh, compagnie incendie de secours euh, sapeur pompier ñu lay jaajëfal di la dalal ci bés yi nga xam ne yéen a ngi màggal corps bi. merci beaucoup madame di dellu di la sàggal yow tamit di nuyu euh, auditeur mi FM yëpp. ñu wax ci journée bi nga xam ne ñu ngi koy jagleel sapeur pompier yi ñu bëggoon a xam lan mooy pertinence solo màggal bés bi. d'accord madame bés bi am na solo trop. si ñun. Mhm. comme ni ko xamee si àdduna bi yëpp euh, datu 4 mais lañu jàpp pour sargal lépp bépp pompier. Mhm. si àdduna bi. Mhm. mais comme année bi ni ñu ko gisee dafa tombeloon ak fetu korité bi mu jege woon ko trop moo taxoon ñu dàqal bés bi ba tey ñu fete ko donc euh, bés bi dina tax na nekk na bés boo xam ne dina tax ñun pompier yi ñiy wane suñu bopp wane suñu liggéey wane lu ñuy lépp lu ñuy def à la population. te it màggal bi yéen nan ngeen ko fa yéene amale. no màggal bi ñu ko fa yéene amee bi alxamis bi. Mhm. lañ defoon journée officielle bi si président su ñettalu si ñettalu euh, ministre de l' intérieur. Mhm. moo ñëw euh, présider cérémonie officielle bi pour buy ubbi journée bi. Mhm. bu ñu paree def nañ benn exposition de quelques matériels rek. waaye nag fête bu gën a mag bi nag ñu ngi koy xaar samedi. ndax bésum samedi bi dinañ am si suba si à 7 h benn randonnée pédestre boo xam ne mag yeeg ndaw yi ñëpp mun neen si ñëw mhm. euh, participer. Mhm. am na circuit boo xam ne pour mag yi la am circuit boo xam ne xale yi la. Mhm. donc ñëpp famille yëpp mun neen ñëw participer si bés bi. bu ñu paree foofu na bu ñu doxee Maristes yi dañuy jógee dox ba place de l'indépendance suñu egsee place de l'indépendance nag foofu la ñuy defee suñu étirement suñu paree ñu profité foofu la dina ay exposition journée porte ouverte yoo xam ne lépp luy matériel pompier da ngeen ko gis jour boobu noonu mais aussi am na tamit suñu naataangoo yu ñuy liggéeyal comme force de défense yi mm. gendarmerie police waa jeunes waa armée ñun ñëpp dinañ ñëw tamit ku si nekk tamit wane tamit sa liggéey pësal sa liggéey. Mm. comme ça population bi gën a xam si ñoom ñëpp. ndax dafa am thème bi nga xam ne atum ren yéen a ci sëgg ci màggal gi. waa thème bi am nañ ko may taxawaayu sapeur pompier si catastrophe ak euh, mars. Mm-hmm. si catastrophe xam ne ni ñun catastrophe yu bëri am jaaral na Sénégal te taxawaay pompier yi nañ si doon taxaw mhm. bu mooy bu ñu mujjee catastrophe bu ñu mujjee am fii mooy Sénégal mooy en mille deux avec le bateau le Joola mhm. ñëpp a gis nañ taxawaay pompier yi foofu noonu ñooñu doon jéem a def repêché corps yooyu yëpp ñoo ko taxawoo nañ si mhm. après nag si côté mbas mi moom deux mille dix neuf bi gis nañ ne masse bu Covid bi bu mu ñëwee nan la si pompier doon taxawu. taxawu nañ si accompagner ministère de la santé ñi liggéey ensemble pour le traitement épi épidémie bi nan lañ koy def ba pare suñu amoon ay cas aussi nan ñoo jël doon jël koori yi di ko yóbbu. donc taxawaayu sapeur pompier si masse ak catastrophe loolu mooy suñu thème ren yow nga commandé unité douze euh, compagnie incendie yooyu euh, fan la nekk ci euh, Dakar justement yan secteur lay couvrir. secteur bu may bu may couvrir maa ngi maa deuxième compagnie bi bu nekk Dakar. Mhm. léegi nag dafa am ay centre lu may lu couvrir bëri na. Mhm. quatorze communes de la région de Dakar yëpp la lay couvrir mhm. mais am na benn euh, benn boo xam ne centre principal mu ngi nekk jëppal foofu la nga xamee moom mooy couvrir secteur Grand Dakar secteur Fann e Point E secteur HLM secteur Mermoz Sacré-Cœur mhm. yooyu yëpp ñoo dañ koy couvrir am naa beneen centre bu nekk aéroport Léopold Sédar Senghor mhm. centre boobu tam day jëlaale ay secteur Ouakam Almadies ah benn partie Yoff am na beneen centre boo xam ne mi ngi ko taxawee Parcelles Assainies mhm. boobu day jël côté Parcelles Assainies côté Yoff bi côté golf bi mhm. donc secteur yooyu yëpp lañuy ñuy couvrir compagnie bu may diriger. muy ay secteurs yu yaatu ndax euh, jafe-jafe yi euh, du ñàkk boo mayul ci liggéey bi. waa secteur bu ma lay limal ni ku xam ne xam ne secteur boobu noonu ay tali kese la. Mhm. te foofu noonu circulation bi ak trafic bi dafa dense trop. moo tax le plus souvent dañuy am ay accident yoo xam ne pas ay heure de pointe dañuy am ay difficulté pour gaaw a egsi mhm. dañuy génn mais tali day xat-xataay boo xam ne su ma jëlee yoonu Castor bi rek baale fay génn ma naan yaa ngi génn dem EMG foofu tamit day xat trop mhm. te malgré que dañuy yor suñu sirène loolu dañuy am du des difficultés mhm. su loo si kaw tamit loolu nañ wax tamit difficulté mooy bu am ay bu ay hydrant parce que côté lakk-lakk moom ñëpp xam ne moom suñu maanaam suñu munition mooy ndox. xam mhm. ah, militaire moom day am ay bal mais ñun moom suñu bal moom ndox la. Mhm. suñu amul ndox bi rek si day yéexal suñu liggéey. Mhm. te loolu bëriwul si secteur bi. moo tax ñu ngi siy ñaanaale tamit suñ si mënee gën a jàppale ñëw tabax tabaxal ñu ay hydrant. loolu tam ne si am solo trop. ndax bés yu mel nii dinay euh, tax ba ngeen ci gën a sonju ñi nga xam ne ñooy autorités yi ñu taxaw ci. waa bés yu mel daf ñuy permettre comme ñoom xam nañ tamit ñu wax la waxaat leen tamit suñu jafe-jafe yi. Hmm. ñu taxaw comme ñoom ñu ñuy accompagner. Hmm. dañuy manifester wu ne bëgg nañu accompagner suñu liggéey ñu ngi fee suñu liggéey. Hmm. di sant suñu liggéey di ko wax di ko wax fu nekk. donc suñu leen ko waxee suñu loo xam ne mooy suñu kontaan. ñu ko réaliser day tax liggéey bi day day gën a yomb suñu. léeg-léeg ñu gis ay lakk-lakk yu bëri rawatina ci marché yi Central Park bi mujj rek euh, gis nañ lakk-lakk bi ni méttee woon ak jafe-jafe ngir fay euh, lakk gi euh, tey li ni mel ndax mën nañ koo teg ci ndodd ñàkk bouche d'incendie yooyu nga yëkkati léegi. wala ñàkk matériel moo koy waral. d'accord matériel bi moom soxna si jamono ji may wax ak yow nii depuis deux mille dix am na matériel importante lot de matériel bu ñu recevoir. Mhm. te loolu tamit eh, gouvernement bi moom pareegul si parce que diggaat nañu yeneen matériel yoo xam ne ñu ne dinañ ñëwaat. Mhm. donc kon du question matériel. Mhm. mais soo amee matériel bi tamit te amoon tamit lu koy kiyee loolu moo ñuy sonal. Mhm. soo demee si euh, marché yu ngay wax noonu. mu am ay lakk-lakk te si côté yooyu yëpp amul benn bouche boo xam ne mun na alimenté wu. parce que camion itam dañuy sol dañuy am seen capacité capacité bi su jeexee jeex na da ngay dem soli jiwaat. donc léegi nag bouche d'instant bi suñ ko amoon à côté day tax du ñu am lu ñuy wax suñu jargon ñu rupture d'attaque maanaam ndox bi du arrêté mm-hmm. tant que kon yaa am ndox di nga mun a fay mm-hmm. donc ñun nag loolu kese moo nekk moo nekk suñu jafe loolu moom bokk na suñu jafe yoo xam ne moom suñ ko saafara ñu arrangé to ñu gis ne léeg-léeg euh, dafay am lu am euh, muy jëyo ñu woo sapeur pompier dina toog daanaka waxtu sax balaa moo egsi loolu lu koy waral toog waxtu si jamono ji waaw ah jamono ji de yàgg de balaa moo egsi te bëri non jamono ji gëmu gëmu gëmu ma ne toog waxtu mais tamit lu koy waral lool ñun sapeur pompier mhm. amuñu benn intérêt toog suñu caserne yi mhm. ñun saay suñu ooyee intervention ñaari minute simili la ñu am pour génn si camp bi mhm. dañuy taxaw génn ci camp bi dem mais nag suñu génnee tamit luy xew ci circulation bi loolu laa doon wax ne ñu suñu coobare bopp mhm. suñu sañoon fi ñuy oowee à la bu ñuy oowee dañuy taxaw mhm. léegi nag problème boobu noonu dañ ko yàgg wax yàgg moo tax commandement bi bu mu toogee réfléchir ne xaamu trouver beneen solution mhm. léegi heure de pointe yi pour éviter li maintenant embouteillage ak circulation yi. Mhm. léegi heure de pointe yi léegi nañuy génnee oto yi teg leen au niveau des points stratégiques. Mhm. maanaam si rond point foo xam ne au moins foofu dina yomb génn ak sooy yomb dugg les oto yi dañ fay taxaw. Mhm. ba circulation bi wàññeeku ñu doog ñëw euh, caserne. le matin de six heures et demie à neuf heures. circulation yi dañuy gis oto yëpp dañuy taxaw. Mhm. su leen ooyee intervention suñ fa bougé rek dafa fekk lu leen ooyee intervention ñu dem. Mhm. uyu ji pour gagner du temps. Mhm. léegi nag soo ñëwee fekkee xam ne trafic u Dakar par exemple soo jëlee avenue Bourguiba bi yenn heure ne yaa ngi génn pour dem rond-point EMG. Ah, castor bi foofu noonu xam ne foofu oto du dem oto du dikk. waaw xam nañ circulation yi dafa métti mhm. léegi si kaw loolu tamit en plus en plus que oto yi jël leen teg leen si rond point yi si accès routier yu stratégique yi commandement bi aussi réfléchir na ba génne ay lu ñuy wax ay moto d' intervention rapide mhm, maanaam tey accident su amee léegi nag ambulance bi comme mun na yéex a ex dañuy moto bi day gaaw jaar si am si oto yi dem comme ça jël victime bi commencé ko prendre en charge en attendant que ambulance bi si ginnaaw di ex donc yooyu yëpp ay jéego yoo xam ne moto boobu du am njëriñ. non moto moto moto boobu noonu début des ok moto bi am na ay extincteur hmm. maanaam lakk bi doog a commencé. Oh, bu doog a door. Hmm. moto yi dina am jëgukaay pour fay ko. Hmm. mais lakk bi am na nu muy tolloo. extincteur mënu si dara. d'accord loolu camion ndox yi kese ñoo si mun dara te camion yi ñooy ñëw. d'accord léegi ñoom suñu génnee ñu tase benn début d'incendie mhm. ñoom ils son en mesure de le faire d'accord dañ ko mën a taxaw bu ba taxaw si loolu. mu am tamit euh, euh, xam naa fa la ñuy jeexalee benn mbir boo xam ne dañuy gis ne euh, ci biir dëkk bi maanaam ci dëkk yu gën a sori yi. day mhm. faral di am ay joyoo comme ay catastrophe jékki-jékki rek daay bi tàq. Mhm. wala mu am ay kër yi nga xam ne paay lañ ko defaree ñu jékki-jékki mhm. lakk yooyu yëpp jàll mais balaa ñoo am en fait intervention sapeur pompier day jóge ci ville bu mag bi. maanaam mhm. balaa moo egsi ci contrat yi te loolu mhm. tamit ndax euh, tey ji jamono yi ñu nekk nii euh, sapeur pare na ci amal ay stratégie pour intervention bi di gën a euh, mobile comme ni ñu koy woowee tey di di di gën a jege ci yenn contrat yi merci jërëjëf madame si question bi question bi neex na ma lool parce que comme ni nga ko waxee ne dëkk yu sori yi mhm. mbébétu sapeur pompier maanaam fu ñu nekk département bu nekk mhm. ñu taxaw fa mhm. te ren ji may am na caserne yu bëri yu ñu ubbi que ce soit à travers tout le Sénégal que ce soit au nord dans le centre au sud et à l'est am na am na centre yu bees ñuy ubbi mhm. te ñi leen ubbi di leen équipé mhm. comme nu loo waxee noonu équipement boobu noonu ñu am moo ñu permettre lool yëpp mhm. ak ressources humaines bi ñu ngi koy ubbi léegi nag maillage territoire national boobu nag si lool nag commandement bi si ay jéego yu taxaw yoo xam ne ñu ngi siy def lu bëri pour ubbi caserne si fépp foo xam ne am na un risque potentiel. Mhm. yoo xam ne mun nañ war nañ war a couvrir. Euh, lieutenant ñu ngi lay jaajëfal bu baax a baax Aïssatou Keita. merci beaucoup madame di la jaajëfal bu baax ak ah, di nuyu waa nuyu waa les auditeurs yi eh, Rewmi FM yëpp di leen mhm. invité suñu journée bi la samedi. Mhm. pour ñu ñëw assister à la randonnée et aussi aux journées portes ouvertes. merci beaucoup rafet na. allez merci. rafet na. allez merci.